buñ sañ a def dara te ñëwul ngir amaat sa ndigal wax ne nii koor gi jub na euh, waxtu wi daaw bi ñëwee nekkoon nañ ci diggu mbas mi waaye nañu ko digale woon nañu lan daa def ci wàllu ndimbal nañ koy def muy dem ci nga ko aajowoo def nañ ko ba daanaka matal na lu mat fukki million ak juróom leneen la jeex li nga xam ne aju na ci wàllu lañ doon jënd ay jumtuwaay ngir taxawal ko nit ñi ci mbas léegi nag ren ji euh, koor gi jub si waat la ñu ne nañ ñëw ci yow nañ ko daa defee euh, déglu ci loo rek ñu defe ko nañ ko daa defee soo allah soob yàlla waaw alhamdulilah ci boole rek mooy doxin euh, wi. wattandiku gi. moom mm-hmm. nañ ko nañ ko ànd nañ ko ànd nañ ko ànd. incha allah incha allah incha allah. waxtaan yaa bu ndaw yaa yëpp rek incha allah. incha allah. sàmm bi. sàmm bi incha allah bu soobee yàlla. bu ko defee nag nga nga ñaaral mbokk taalibe yëpp. ñu ci biir réew ak ñu nekk bitim réew. ñu ci Assane Diop nekk Amérique yëpp rek. seen taxawaay. waaw doy na ci sëkk ak xaw xaw dañ koy defal seen. incha allah alhamdulilah. waaw léegi taxawaay bi moo gën a xam. alhamdulilah jërëjëf. moo gën a xam kon nag. jërëjëf damay ñaan nag ñu gën leen a jàppal toog sëñ bi. waaw waaw bu ngeen gën ko mën. waaw waaw waaw ngeen ko mën. waaw waaye moom alhamdulilah. waaw liggéey sëñ Tuubaa bu sell la. waaw waaw waaw moo gën a xam. waaw waaw moo gën a xam moo gën a xam. waaw waaw bi nekk dama gën a xam. dëgg la te li nekk ci moo ko moo ko